di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi may soxna jaara mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ci bis bu tedd bi di bisub soxna jaara ñu mbokk yi daje woon fii di fi jàng alxuraan ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha muy daara joo xam ne itam mën nañ ne yàgg na lool lool ndax bu ñuy histoire am sax dëgg-dëgg fi mu takk tàmbalee mooy ci jamono yi ku ñuy wax bàyyi Serigne Maram Bousso di mag ci sëñ Cumbuleen biñ fi daan màggal su ñoom dañ naa def booba kazu rajab lañ ko daan def buñ masaar ñëw fi yend fi def ak màggal jàng fi ay kaamil bi bi mu fi jógee bi sëñ Basiru tàmbali màggal gii itam sëñ Cumbu leen la ci loon mu daan jiite kaamil bi jiite na ko xam naa lu mu gàtt gàtt lu fanweeri at ak nangam fanweeri atu juróom jëm ñeent fukki at bi mu fi jógee itam lañ ko jox rakkam ji ñëwaa bàyyi sëñ Bousso mooy itam moo nekkoon kilifa gi ba bi yàlla defee mu jóge ci la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha wëlbatiwaat nag léegi jël lépp jogaat ko ci loxob sëñ Fallou mii di xalifab sëñ leen di xalifab sëñ Massamba Kanni mu feggoog sëñ Fallou bu som itam sëñ Alaaji eh, di xalifab sëñ Afe mu mel ne fii askanu Mbàkke ak Mbusoobe rek ñoo fi daje ngir wàcceel seen maam ay kaamil yoo xam ne yàgg na am ndax loolu kon mel na ne sëñ Basiru jaar na fi sëñ Moustapha jaar fi ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk ñu koy ñaanal suñ borom Euh, guddal fanam te yàggal ko fi lool a ah, loolu daal mooy li nga xam ne mënees na ko tënk ci daara ji muy daara joo xam nag kaamil leen fi wàcce mënuñ ne nangam la toll ndax maanaam wax màggal gu jot buñ xëyee ci àllarba ji ci lañ koy tàmbali di jàng ba ba tusubaar ñu wàcc bu ngoonee ñu kontaat ba timis ñu wàcc lu mbooloo mi gën a bare noonu la kaamil yi bare gën a bare am na ñuy jàng ay jukki am na ñoo xam ne ñuy jàng seen kaamil yi bopp am na ñoo xam tam lépp la ñuy boole kon fii daal li nekk ci ëli ëpp solo moom mooy lii ci bisu soxna jaara bi soxna jaar nag moom yaakaar naa lu ci bëree bëri dégg ngeen ko moo tax li ci nit ñiy wax bëri na barab bi itam sëñ Fallou mii nga xam ne moo ma fi nekk di doom ci sëñ Cumbuleen maamam sëñ Masamba Kanni wax nañ ne moom la fi sëñ Touba njëkk yabal mu feeñal barab bi te loolu man déggiwuma ko ci ku dul ba sëriñ Cheikh Ndiaye mi nekk euh, Kaolack ci passoir képp koo xam ne bëgg nga ci ay leeral boo fa demee moom nekkatu fi sax ak njabootam ñu ngi damaa jóge fii Poroxaan ñëw ziyaare ba dem jaar fa dégg muy mag mu baax mag mu yàgg ci bokk ci mbokk waaw ma jaar fa ziyaare ko laaj ko mu ne ma foo jóge ma ne ko Poroxaan mu ne ah sañ ngeen ko ndax suñ ma Samba Kande moom la fa sëñ Tuubaa yabaloon keroog ba mu koy yabal man mii bokkoon naa ca ña dem kon lool ma day mbir moo xam ne maanaam mag mu toll ne moom ragaloon yàlla bu ne man demoon naa ca kon loolu day mel ne xisa bu wér la ndax màggal yi dafa bëri màggal goo dégg ñu ne diw lañ ko njëkk a bii ak bii waaye man nag man fii laa ko déggee te ku ci bëgg ay ressources yu leer ta man ngaa dem laaj ko ak njabootam njabootam gaa ngi waaw moom nag jóge na fi bu yàgg waaye mag mu diine mu ne la de bokkoon naa ca loolu ma ne soo caa dëgërloo ndax man dëgërloo ma rek ne suñu Masamba Kane mooy sama maam li nit ñi wax dëgg la déedéet damaa dem nag ba am ci koo xam ne du ma ne ab jàmbur la waaye mag mu toll noonu ceeg ragal yàlla lu mu la wax mën nga caa dëgërloo kon loolu moo loolu lañ ci goon a sànni ci ay kàddu su fekkente ne amaan nañ leen lu ci war a daal itam ñu yokkaat ko ci incha allah rabbul alamin ak jërë ngeen jëf asalaamaaleykum ba une heure ba une heure demi ngoon gi lam li toll ci trois heures wala trois heures demi maanaam ba dix ba dix neuf heures waxtu moo ne bis bu set noonu la ñuy def waaw li ñuy jàng ne moom kenn mënut a xam ne mi toll ndax du mbooloo mu bëree rek mu bëree noonu moo tax kenn mën koo takk waaye lu mu gàtt gàtt moom bis set euh, waxtu wu ne dañ fi jàngul ëpp ñaar fukki kaamil nanga moom ci bis bi waaw bis bi set te bokk nag nag ñiy jàng ay ay benn benn yi nga xam ñoom dañuy jàng seen i kaamil loolu tax ma mu ne su koo xayma ci kaamil yi jàpp daal daal ay téeméeri téeméer lay doon boole koog yeneen ñaan yoo xam daal wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bi ñu jagleel ñu koy def sant ci sëñ Muntaxa ndax gis ne ne fii jafe-jafe sax bëri na waaye nit ñi dañ koy fàtte ndax xam nga ne barab bi tàng na gis ngeen mbaar mi ni mel gis ngeen pënd bi ak mbooloo mi daanaka waaye lépp nit ñi dañ koy fàtte ngir ndigal li nga xam ne fekkoon nañu sawar ci ba noppi sëñ bi eh, eh, defaat ko waaw maanaam min mbir moo xam tam sëñ Fallu mi ko jiite wax dëgg yàlla sawar na ci lool ndax bëri na ñu koy xaar ca kër ga bëri na am mbooloo moo xam ne mënoon naa toog waaye lépp xam na ne liggéey bii day liggéey bu mag waaye bu doon liggéey boo xam ne liggéey bi leneen leneen adduna dong la kon kon doo ci teew waaye nag lay liggéey boo xam ne liggéey bi sëñ Tuubaa liggéey bi soxna jaara kooku moom mu mu sedd ñëpp ci yam waxtu wu ne rek bu ni bisimilah rek fekk na ñun alhamdulilah ba noppi waaw xasida itam ñi nga xam ne dañoo bokk boole man alxuraan ak xasayda ñi ngi jàng am na ñoo xam ne tam xasaay rek la ñuy jàng waaye nag lii mu xasaay ñoom dañ koy def rek addiya dañ naan jàng nañ fa lii jàng nañ fi téere tàngam maanaam téere xasaayid yëpp daal na ngeen yëg ne yëpp lañ koy jàng rek waaye nag wutu luñ ko ab lim waaw ah, ndax comme dañ koy def ngir yàlla moom sëñ bi ñu ko sant moom dañuy jàng di rek fu ñu sonne rek bàyyi <laughs> mbokk taalibe de moom dañ xam ne barab bi barab la boo xam ne barab ci barab yi gën a màgg ci adduna bi ci la bokk dama ne sax ci yoonu murit waaw ndax ku ne dégg na ñu ne Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu wax na ne sëñ Touba bi mu bi mu nekkee te loolu sëñ Moussa Ka wax na ko ñeneen na ñeen wax na ndax sëñ tubaab bi mu jógee di liggéey suñu borom bu weesoo ñaar la ci amoon muy rasulullahi sallallahu alayhi wa nga xam ne lu ko suñu borom di bëgg bëgg a teg dana ko dana ko ko wax ak soxna jaaram bi nga xam ne fépp mu nekk ci ay ay ay jafe-jafe moo ko fay génne kon ne gis na maam ba mu nekkee Ndakaaru ca ca ca taax ma soxna jaaraa ko fekk fa ñaax ko ba jomam gën a yokk donte amoon na ko bu baax a baax ba mu nekkee gamoo itam bañ ko sóolee ci ba xam ne nee soxna jaara ko fi génne kon kooku ku ne xam na ne lépp luñ ko wooteel kenn waru faa jiitu kenn te sëñ Tuubaa moo wax ne poroxaan gii de kon ne fi jàng da nga ma fekk wala ma fekk la fi kon bu dul màggal tax nit dañ fee war a euh, baagante di fi ñëw waaw te itam sëñ Tuubaa yeesali armeel wala mu digle ko a barab ci barab bii lañ ko mas a defee ndax li ko waraloon tam dañoo wax ne dafa am pël boo xam ne moo daan jox soxna jaara soow ba mu fi nekkee mu tay la woon ko ay ay lam yoo xam ne mi nga du doon xaw ma lami ndappeel la xaw ma ndax dafa yàgg bi mu demee ba ba jeex nag la ne ko nag yow kat la ma la tay la woon léegi jeex te amuloo ma fayee léegi nu ñuy def mu ne ko kon damaa bëgg nga dimbale ma ndax laax bi may defal sa sama sëriñ bi daal bëgg mu mu dakk mu ne moo tax nga tay la so takkaay yu toll ko naa la ko delloo te bi set maa la warul soow waaye nag sa liggéey bi bu ma ci fàtte fii ne pël boobee lañ fa daan siyaaralu yàgg yàgg yàgg ba sëriñ Tuubaa yàb la ñu génne barab soxna jaar bi kon loolu mooy wane ku liggéeyam ko defaloon lool rek moom lañ doon siyaare waxtu ma nag soxna si boobu kon nag ñu ngi jërëm ñëpp di sant boo amaatul beneen laaj wasalaam di ko nal day garam di way sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla léegi ko may soxna jaara